asalaamaaleykum euh, mbok internetu Kewlo TV comme ni ngeen ko xamé ñu ngi fi ci ensemble national tay mu nekk bés bu am importance bés ba nga xamné day marqué histoire du Sénégal Ousmane Sonko bi nga xamné dañ ko djign viol euh, tey la ñuy yëkkati mbalaandu kiray mais depuis bi fi ñëwé suba si suba ba léegi journalistes ñu ñoo accéder bir euh enceinte ensemble national pour am euh, ay ay intervention député ah, depuis suba gis ngeen ni fi ñu nekk am sembaxlo كان خامل في ملتحو زون عايسي عايسي عايسي دي دماني دوغو تبير بو عم انتر لكتور بو دين منا واحق journalistes yi ñu ngi nii di kaas seen droit ñu ngi kaas seen droit pour euh, pour euh, sénégalais yi ak force de l'ordre yi gën ñoo jox suñu gëdd ndax ñu euh, nekk ñu fi lu dul joxe xibaar ba nga xam ne xibaar bu wér te wóor di askanu Sénégal nga xam ne ñoom ñëpp tey ñu ngi ubbi seen bët. am nañu gain de am nañu gain de cause journalistes yëpp a ngi dugg fële nga xam ne mooy Assemblée national ngi joxe xibaar bu wér te wóor xam nga ñëpp xam nañu tey askan bi ñun rek la xaar ñun journalistes si ñu jox leen xibaar yu wér te wóor yoo xam ne a xam lu xew si biir Assemblée nationale fi nga xam ne foofu la ñuy yëkkatee tey jii nii mbalaanu kiiraayu euh, Ousmane Sonko. quelqu'un qui exige le le le le le respect du droit mais munul pour la première partie mu ne ni jaar leen ci yoon mu ñëw gis fii constaté ni dañu jalgati yoon mu war répondre donc par rapport à cela donc il reste cohérent mooy actuellement ces droits n'ont pas été respectés le Parlement a bafoué la dignité du Parlement et je wax tamit ni opposition on a beaucoup plus de respect pour le président de la république que ñoo xam ne de ñoo non c'est important parce que respecter ce que nous avons dox c'est alayhi wa sallam des toujours situation ne actuellement je pense donc la république la constitution ce qu'il fait su mingi mi gauche nga ne ko yaa gauche mais quand maintenant aveuglément nga koy tatchu diko pousse diko encourager ñep ñoo xamni ni nañu daanu lu melni mom mo len duggal ci camp et je dis c'est pas bon pour le pays motax un président de la République nek ci kaw dafa wara xamni ça c'est une richesse am ñoo xamni ils sont contre am ñoo xamni ils ont d'autres points de vue c'est une richesse pour le Sénégal ku ko yak yak nga lo xamni mo moo pétrole ku ko yak yàq nga lo xam mo upp ëpp mo moo upp or moy ce capital humain cette intelligence cette diversité cette intelligence collective ku ko yak yàq nga lo xam ni euh, mooy yore rew gis euh, xalé bu jigen bobu euh, nek journaliste Dakar Buzz mom bi nga xamné depuis suba mu ngi fi mu ngi casse droit di wax ñii di force de l'ordre yi ñu bàyyi ko mu dugg ak ay mbokk journaliste am mu mun a joxe xibaar bu wér te xam ngeen ne askan bi yëpp tey jii nii tey ubbi nañ seen i bët ak euh, seen napp nopp pour xam ne xew si biir assemblée li ñuy def mooy ñaawlu ko ndax dañoo amul lenn lu dëgër loo xam ne am nañu ko duñu war a mën a yëkkatee civilité parlementaire bu soow li am tey ñaawlu nañu ko te danañu continuer suñu combat ñun bi ndax lii nii moom daf war a jeex ndax depuis Macky Sall ñëw fekk tey ñëpp xam nañu ne dafa jël assemblée nationale di ko caxat caxatee jëlug nitam teg fi jël faam boo xamee teg ko fi lu mu bëgg rek mu defal ko fi avec son majorité mécanique la boo xamante ne bu leen Macky waxoon dagg leen seen baat yi sax

une tentative permanente de liquidation de ses adversaires politiques. Mais il se pose un véritable problème d'identification de ses adversaires, parce que sa véritable opposition est constituée des 14 500 000 Sénégalais si on soustrait des 17 millions les 2 500 qui ont eu à voter pour lui. Et vouloir eux tous les intimider, les débaucher, ou encore moins réduire à sa plus simple expression l'opposition n'est qu'un projet d'emblée voué à l'échec. Parce que c'est son bilan qui est son opposition. Son bilan du point de vue social, son bilan du point de vue économique. Il est attendu des réponses à ce niveau-là, mais pas un projet funeste, hideux, d'élimination d'adversaires politiques nous exprimons notre soutien à notre collègue, l'honorable député Ousmane Sonko, arrivé troisième à la dernière présidentielle. Et il est important que tous les Sénégalais se mobilisent hmm. aujourd'hui. Parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. Ce sont nos libertés qui sont en jeu. Nos forces de l'ordre sont hmm. aujourd'hui mobilisées ici au niveau du Parlement. Cela veut dire que l'expression libre que le Parlement devrait véhiculés en premier commence à disparaître. Vous n'avez même pas la possibilité, vous, professionnels de la presse, à faire votre boulot convenablement, ce qui constitue un problème. Les débats se sont passés comme vous avez l'habitude de les suivre dans un climat désolant. Donc vous êtes contre le règlement intérieur a été constamment violé. Oui tous les articles concernés par la levée d'une immunité parlementaire ont été violés et cela n'est l'œuvre de personne d'autre que de

façon convocation du mais les députés députés ont parlementaire qui dit Ousmane Sonko.